Bienvenue sur Salam Vision. wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa àdduna waa Sénégal man alaaji sëriñ daam loo maa ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku nekk ci tromb ak santam di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou mu yàgg fi te ànd ko wér di ñaanal xalifa Baye Fall mu yàgg fi te na ko wér ak njabootu maam borom Touba gépp euh, tey sama génn euh, wax ji du mën a bari ndax ku ne xam na li ko waral muy fii réew mi toll ci coupe du monde bi nga xam ne àdduna bépp seetaan nan vidéo yi ma defoon avant coupe de Afrique wax leen score yi ni muy demee ci biir Kiki TV nit ñi gisoon nan tamit vidéo boo xam ne mi ngi daw fan yii yëpp ci àdduna ñu muy circuler ci yëpp internet bi muy waxoon naa leen Sénégal ak France dana daje soo duggee ci Salam Vision wala ABS ba léegi da ko gis ci YouTube bi euh, ma waxoon leen tamit Sénégal dana génn dana génn poulam waxoon ko avant coupe du monde ma waxoon ko. waxoon leen dana qualifié avant coupe d'Afrique ma wax ko yooyu yëpp nag mu ngi ci youtube bi boo tapé abs pro wala salam vision wala kiki tv wala sama tiktok loo alali sëñ Saliou da nga ko fekk kon jërutul ñuy wax ci yooyu mais tey sama wax ci li mu gën a soññee mooy sëriñi sénégalais yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñu nekk senegal ne ci réew mi di nu nit ñu baax ñu xam ne sénégal lu baax rek moo ko tax a jóg loolu la ni woo tey àdduna bépp di leen ci woo muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw képp koo xam ne suñu borom dénk na la xam-xam koo mën di doon ak kilifa diine boo mën di doon ñu jóg ci li nga xam ne xale yi ci la ñu nekk ngir ñu ñaan réew mi jàmm ñu am ndam lépp mën a dox ca kanam jëm ca kanam loolu la ni ñaan parce que jàmmi réew mi ak ndami réew mi mooy suñu ndam kon nag ndamu réew mi buñ ko bëggee ñaan kilifa diine yi lañ ciy jiital ak ñëpp ñu ñaan yàlla saxal fi jàmm ñu ñaanal équipe bi mooy am ndam ndax bëgg sa réew ak ñaanal sa réew bokk nañ ci jaamu yàlla kon na képp koo xam ne am nga xam-xam moo xam noo ko man di amee ci zaahir wala ci baatin ak ci loo mën di yëngu nan ñaan match bi ñu gañe ko ñaan yàlla Sénégal jël ko waaye nag balaa boobu nag danaa leen wax lu leer nañ am na kilifa gu mag goo xam ne dafa bëri xam-xam lool te yàlla dogal mu jóge fi damay fàtte tur yi mi ci sama xel waxoon na fi ne coupe du monde sax mën naa ñëw Sénégal ba waatoon ko giñoon ko teg ca na leen ci kaw ñu dimbali néew di doole yi waaw Mamadou Samba Diallo moomu nan xam ne waxam jam waxoon dama leen koy wax tey jii waxam jam waxoon mi ngi doog jot nen dimbali néew ji doole yi fu waay man di nekk te mën a dimbali néew ji doole moo xam saakub ceeb moo xam noo ko mën di dimbalee ñu def ko incha allah rabbi soobee yàlla man Alaaji Sëriñ Daam Lo dana andi coupe du monde fii ci Sénégal maa leen wax loolu sëriñ boobu loolu moo waxoon ci kàttanu suñu borom mi ngi doog a ñëw te kooku nitu yàlla la nit ku baax la waxam jooju moo waxoon nag képp ku leen wax lu dul sarax yi fi mu toll nii loolay sarax bi nan dimbali néew di doole yi ku ko man muy joueur muy président muy ku man di doon réew mi Macky Sall moomu ko kenn moomu ko sénégalais yëpp ñoo ko bokk moom bu buñ wax rek jiital ci président ku mën a dimbali ñëw di doole nanga ko def ngir yàlla suñu ko defee comme ni ko kilifa googu waxee woon sarax boobu mi ngi doo ko taxaw man maa leen ko wax coupe du monde bi incha allah bu soobee yàlla danaa ko indi Sénégal ci kàttanu suñu borom su fekkee ne nag nit ñi defuñu loolu tamit la ma leen waxoon incha allahu rabbi la yàlla mayoon bu ko nanguwut Angleterre dañ koy dóor dañu dem quart de finale incha allah bu soobee yàlla te nee naa leen woon Sénégal bu demee quart de finale incha allah France lay am te bon nag bu ma ko xasee bu yóbbu quart de finale mook France Serigne bu génn naan leen nii lay demee France dañ koy dóor waxi caaxaan la ndi ma leen wax làmmutuma ko waxuma leen waxi gone waxi mag yi jëmm laa leen wax kon nag liñ bëgg a def Sénégal am ndam mooy kilifa googu loolu mu waxoon mu ngi doog a jot nañ dimbali néew di doole fu waay man di nekk te sa alal moo xam saakub ceeb moo xam ku néew doole jox ko fii ba max ba ku ko mën na nga ko def ba max bi ni mu jàlle ku ko man na nga ko def Angleterre nag sëriñ si ciy dugg naan dañuy ñaan danaa leen laa biire ñoo fi gën a tuuti xam-xam ci réew mi nag xamuñu dara waaye nag li ci yàlla mi ngi mu def ci doomu aadama yi nan xam ne max bi dimanche la te maxsu dafa am nuñ ciy ñaane samedi ak dimanche ku ne xam ne tubaaba ko moom bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg max bi bu doon ay 15 heures 13 heures Sénégal première mbitaa dañ koy dóor deuxième mbitaa dañ koy dóor lu leer naññ laa leen wax loolu sëriñ mënu ci dara baa koy taxaw di wax heureusement nag ba mu demee 19 heures max bi tamit nag incha allah bu soobee yàlla sëriñ bépp bu ciy ñaan na xam ne max bi maxu deuxième mbitaa la sëriñ bu ciy ñaan nag ñu ci dimbali ngir yàlla teg ci nag sëriñ bu ciy ñaan nañ ci ñaan ci arbitre bi maxu bi maxu arbitre la du fubal dama leen di wax lu leer nañ maxu arbitre la jamono jii may wax ak yéen. Angleterre ay bitam ak ay gañam ak ay pénatiyam yu ni kereer mu ngi ci arbitre bi ku ci ñaan na nga jàpp arbitre bi sëriñ boo man di doon max bi arbitre koy gañe du football bu rafet du dara arbitre la man maa leen ko wax wallahi lancim nan jàpp ci arbitre bi yeneen gaa yi jëru tiit lu leer laa leen wax fépp fu ab sëriñ nekk nag te mën a ñaan lillahi wa rasuli ñu ngi la koy ñaan na nga ñaan Sénégal am ndam bul xaar Macky bul xaar ministre de sport bul xaar dara jëlal sa alal ak sa dërëm ndax réew moo xam ne bu doon tàkk sa alal bokk ci sa dërëm bokk ci sa sëriñ bokk sa soxna bokk ci say doom bokku ci kenn waru laa gën a bëgg réew moom te moomu amuñu nag lu dul Sénégal man de incha allah rabbi soobee yàlla ko dogalam. lépp lu ma man danaa ko def insha allahu rabbi dana dóor Angleterre bu neexee yàllaa ko dogalam yàlla laay jiital lu may teg doo ko caa teg ci kàttanu sunu borom bi dana dóor Angleterre dem quart de finale te buñ fa demee incha allah bu soobee yàlla France la ne am lu leer naa ñu laa leen wax te buñ deful lii ñuy def incha allah bu soobee yàlla danaa leen génn na leen France dañuy dóor te amul sëriñ buy taxaw di yor bopp sa tànk sa bopp jëm kaw sa tànk féete suuf nga di ko dindi amul nan bàyyi caaxaan yi li ci des nag ñu mànkoo booloo doon benn xam ne doolo mooy benn ñu ñaan ci réew mi jàmm